xoolal kii waa kër Boy Niang moo ngi dugg si ndànk xoolal ma lii moom ko bëggul nga filmer ko de bant bi eh, béjjën ay béjjën la yor li béjjënu lan la moom ah moom li béjjën yi béjjënu la la ah. suñu béjjënu jinne ah loolu de yaa ko ñemee wax xaaral ma ko ko kaay sama xarit sama xarit maa waaw tournel wax man bañ na di wax de làmb ji de léegi sëriñ ci nekk dañuy nëbbatu looloo ma jéem man ñee ngi kagalu ñee ngi wane ginnaaw copain jëwrin maa ngi lay ziar léegi taxawal bul wax nga bul bul kii nga wax bul bul gestu nga wax bañ na ne du wax c'est grave boo ñaa jàllagul waaye gars yi ngi commencé jàll de xoolal béjjën yi ñu yor ah xoolal béjjén bi mais lamb ji nar naa bëri mystique am ah, moomu am nga mystique ma. non nga ana gàllaaj yi nga doon teg. <laughs> xam bi nga doon bëre. laa xam nga yooyu. ah da man numéro 2 comme bi da. <laughs> ah ñëw leen ci jàmm ak salaam bienvenue booy ñaa ngi noonu ñu ngi koy yëkkatil barrière bi mu war a dugg si sous le contrôle de Abdoulaye Ndiaye booy ñaa ngi noonu moo war a jàmmaarloo ak Balla Gaye numéro 2 le premier janvier ngeen koy am en direct sur seen affiche point com def comme gars yi def def comme gars yi. defar mu bëgg kenn benn benn na wàcc. nañu nañu non dafa am ku dugg dafa am benn bu dugg ci biir. nañu wàcc. oh Baye Balla Baye Balla Baye Balla xaaral damay bañ ñii dafa am lu ñu leen wax te bëgguma erreur te kii c'est un ambassadeur la benn rek la ñuy dindi mu jeex. ambassadeur de la non violence moom lañ ko faloon 2012. wala 2013 lañ ko ko fa. may ma ñëw ñaan booy ñëw. gars yi nañ ko oto bi du dugg parce que leneen liñ ko may dafa ànd ko waaw moom merun gars yi ato nañ oto bi du dugg parce que liñ ko may ak lim andi tolloowul quatre personnes xaw ma cinq waaye nee nañ six la andi. waaw benn ñu ñu gérer bi loolu la moom moo wax Baaba Maal numéro 2. tey CNG dina leen dagg ba ngeen bëgg a dee nag mbëri mag yi CNG dina leen dagg day de heure yi ñu leen joxoon ñëwuñu ko. Franc ñëwagul. Franc ñëwagul. Balla Gaye sànq la ñëw booy ñaa ngi nii ci bunt bi. Père Thiam nga ca bunt ba costé moom moom moom costé rek la fi nekkee ba Balla Gaye ñëw nee na dix nee na vingt deux heures dix huit vingt deux heures dix huit instant bi vingt deux heures trente quatre gars yi moom ci ordre rek la dox chef bi nee na ko amul lu may maye chef nee na mayewul chef nee na mayewul saraxewul ñoo ko nekk aywa ko am na Olof Ndiaye nee na mu mu Olof Ndiaye amul ñàkk waxtaan am tey seen affiche point com tey seen affiche point com mu ne ko seen affiche nga am foofu mais bés lamb ji lamb ji nar naa bari bari bëri coow nar bëri ay détails. mais déjà coow li fu mu commencé gis nga ko Balla Gaye la ñu wax ni moom moo war a ñëkk a ñëw. heure lañ ko jox. moom mu mel nii dañ staffam dañ doon xaar Boy ñaar dugg si. booy ñaar bañ a dugg si tànk que Balla ñëwul. mais est-ce que war nañ sukkandiku ci ci loolu ku ci nekk heure bi ñu la jox respecté ko rek. waaw donc ñoom ñaar ñëpp dafa mel ni fautif nañu ci côté boobu ah. non ñëwuñu heure ñoom ñaar ñëpp ñëwuñu heure. moom maa koy wax sànq ma ne. waaw CNG dina dagg ba sonn tey. waaw que waa Kaaw Boy Niang fu ñu ko teg mooy Balla Gaye moo war a njëkk a ñëw tant ñëwul du ñu ñëw. Mm-hmm. mais yow règlement lu mu la wax defal. waaw Balla itam règlement heure la ko jox. na ñëw heure donc ñoom ñaar ñëpp

loolu benn erreur la boo xamante ne tey mbër yi def nañ ko beneen bi mooy ñu may la par exemple quatre personnes ni la moom nga war a dugal nga andi six personnes ba instant bi blocage bi am ci bënt bi loolu moo ko waral loolu tamit est jotul jotul mbër yi ah ñu xoolaat seen bopp parce que souvent dañuy jëm a xëccoo sax ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy policier loolu wareef la mooy problème bi nga souligné woon sànq rek mooy xam nga tey booy ñaa dafa de du ñëw wala dañ dañ ne ñëw tànk Balla Gaye ñëwul léegi nag Balla Gaye juutu leen mais ñoom du ñu amati confiance parce que dañuy jàpp dañu miine fépp mhm. donc ñoom bu ñu dugg si duñu quatre personnes pour ñoom doyu leen mhm. léegi ñoom il faut ñu dugg ak lu ëpp quatre personnes il faut ñu ne fu Balla Gaye jaar duñ fa jaar mhm. donc yu mel noonu muy indi ay jafe-jafe donc toujours des fois nga bëgg dara loolu wëlbati ko indi ay jafe-jafe mais la dafa mel ni oto baa ngi waaj a oto baa ngi waaj a accéléré gis nga gis nga chauffeur dañ ko wàccee chauffeur ko wàccee léegi beneen chauffeur mooy xarit la kii yàgg na dugg ci live Instagram yi kii mooy Jalil Mbaye ah kii mooy Jaline Mbaye Jaline Mbaye waaw Jaline moo sol Lacoste bu jaune bi bokk na ci ñi nga xamante ne mhm. yàgg nañ dugg ci live Instagram faral Boy Niang lool di doon tasanteeg chinois yi muy metti lool ci ci ci ñoom donc Jaline moom borom baax la ndeysaan moom moo andi Boy Niang yàgg na ko yàgg na ànd ak Boy Niang nag ci ay face à face dañ ñu du dugg dañ ñu du dugg wàññi foog ñu wàññi benn personne wàññi nangu naa wàcc pour magu Boy Niang dawal oto bi ko ko defee ñu def face à face mais Franc tamit daa mel ne gisaguñ ko Franc gisaguñ ko tamit lool jaaxal nañu parce que Franc mbër bu discipliné la mbër bu correct la mbër bu mun a respecter heure la on ne sait pas ce qui se passe léegi dinañ ci xam dara léegi incha allah Gaston moom ah ku lekk avance am daal defal loo xam parce que day day mer Reug Reug daal moo fi jiitu waaw ak Sa Thiès waaw Reug Reug Marley euh, Sa Thiès Reug daal moo ñëkk ñëw topp ci Marley topp ci Sa Thiès topp ci Sokh. Forza tamit ñëw na heure. waaw Forza est-ce que Forza ñëkkul ñëw Forza moo ñëkk ñëw. baal ma Forza moo ñëkk ñëw. Forza moo ñëkk ñëw topp ci Reug Reug topp ci Marley topp ci Sa Thiès topp ci Sokh. fu mu toll nii Balla Gaye topp ci Boy Niang topp ci. Franc la ñu gisagul. na solo loolu yëpp di ko am ci seen com ay affiche la yoo xamante <laughs> wérante boo xam ne Lamine vraiment jaru ko. Oh. ay quatre personnes cinq bu buñ dem ba fële nga koy génn nga téye ci porte bi nga téye ko ci porte bi. Oh. wax ji jeex. war naa mën a nekk ku téye nii oh. ba kañ. waaw loolu moom la ku nekk naan amoo droit jox ma ordre kenaan. fii lay xewee ci Sorano ma ne ko fii lay xewee Médoune ci Sorano yaakaar naa tey le 10 octobre tey le 10 octobre 2022 signature Balla Gaye numéro 2 ak Boy Niang Médoune di nga dégg de. laa ilaha illallah tey di nga dégg. dafa tey di nga dégg Médoune dafa am lu boo ñaa waxoon ah. nee na ma seetaan naa interview yu bari nga def ko. koo wax mu ne na Balla Gaye mooy suñu idole moo ñu dàq bari mu ne ma sama buntu kër doo ko fi dégg. loolu la la wax nee na ma sama buntu kër bi doo fi dégg doo fi dégg Balla sama idole. booy ñaay moog yaay waa ji yàgg na yàgg nañ. ak booy séeréer dégool junior ñoom yàgg nañu yàgg na ak ñoom ak rakku bi ni mu di Lamine loolu yàgg na waaye lépp ci seen affiche point comme lay xewe le premier janvier di ngeen gis lu ngeen mësul a gis waa waaw waa waaw bàyyi ko bàyyi ko rek mu liggéey. mais gisee coow li. coow li bëri na de. lam ak coow ànd de. gars yi la ñuy wax coow kur. mais lam ak coow est-ce ni ñoo ànd. ah ñoo ànd kay wax dëgg fa yàlla. Ah. Ah, xoolal xoolal xoolal gënal ma gënal ma fee gënal ma foofu fii moom kenn du fi nëbbatu ku fi nëbbatu ñu génnee la waaw. waaw wàcc bi wàcc bi parce que foog ngeen wàcc ñu compter seen effectif damay bañ li daloon fay ci bi dal ñu parce nga ñëw ñoom ñu ne yow nga ñëw génn ñu am ñu ëpp bëgg ëpp taxawal ñoom ñu ñëw ngeen dugg waaw non dañuy taxaw ñoom nekk benn bloc bu fi nekk ñaan wala laa déglu sal ko moo ngi na ñëpp wàcc ba pare léegi ñaata jaar am am mu ngi ci liggéey bi mu ngi ci liggéey bi ah, curuku am na lu ñuy def de ay fas bëjjën bi mais lii lan la lii ban mala la ci mala yi lii daa am tooke de gars yi ah, taxuñu taxuñu koo jóg ñun ma ngay diri kaw daan féete waaye tay suuf la féete de bëjjën de kaw la daan féete lii dafa mel ni antilope la de. combat bi combat bi nag combat bi moo toll. dafa mel ni béjjënu antilope la. combat bi du combat bu ndaw demee mu ji. jëlal déewante ba. déewante ba. préparateur musique yi léegi ay artistes lañ xool xoolal xoolal yat bi xoolal yat bi bant bi daal. booy ñaa ngi noonu di wàcc. ban heure booy ñaa mu ngi wàcc vingt vingt deux heures quarante deux. vingt deux heures quarante deux la wàcc. waaw waaw. Balla mi ngi dugg vingt deux heures treize. treize la dugg wala trente trois. fay faat la xanaa. Ah. fay faat jullit fay faat <laughs> déedéet kii julliwul day jàpp pour jàkkaarloog Balla Gaye Iba Kane. saa yu wootee woot bii rek grand événement la. bande bu zone bii. Ah. bu ko defee rek grand événement moo jot. tent bi tent bi. ah tent miin nañ ko ci booy Niang. Ah. mais Iba Boy Niang dafa mel dafa yokk quoi. Boy Niang bii ma gis. dafa pare. Boy Niang bii ma gis. waaw dafa pare heure heure sifflet rek lay xaar. mbaa du loxo arbitre bi rek lay xaar. rek lay xaar. loolu le premier janvier la. mais attention ki muy bëreel. Mhm. attention Balla Balla daa soxla combat bi. waaw moo tax combat bi ci kenn ci ñoom ñaar. bu la ci ba ma fekk nag. bu la ba bu la ci ba ma fekk. bu la ci ba ma kenn fekk waaw fi indi problème ma ngay ñaan booy ñaa ngi noonu di ñaan mu ngi noonu di ñaan kon am ñaari nopp nopp bu xonk ak bu weex eh, eh. def na def na def na ni rek rek def sànq. dugal dugal.

ndeysaan xale baa ngi noonu. waaw ah, dafa kanji dafa kanji. waaw waaw waaw. kanji kanji yaa ngi bokkum jëy kanji kanji production. waay kanji kanji yaa ngi. ndeysaan. ok kon ñaar numéro 2 bi ñu noonu. tey xamal kanji kanji combat bu mag le premier janvier bés boobu jaaxal du ay fo waaw bés la boo xamante ni bés bu rëy la ci moom waaye bés bu mag la ci Balla Gaye jéego la ah, ah, na mu def ca dëkk ba Ousmane go go go go go Ousmane go Go, go, go, go, go. Analog Pinky. Analog Pinky. There we go.